dal leen ak AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér daleen jàmm ci seen chaîne préférée AGT News ñu daal tàmbali ci doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo fekk baax fa fecce douane Paris la France daat nañuy dajaloo ngir rekk wuyu ci wooteeb Ousmane Sonko njiital Pastef les Patriotes. mbooloo mu bari ñoo daal di dajaloo foofe ca Paris ca place bi ñu duppee Trocadéro ngir rek ñu doxalin bu njiitu bu Sénégal Macky Sall teg loxo bu jéggi dayo bi nga xam ne jamono ji mu ngi koy def doomi réew mi ñetteelub mandaam ba ci sax ni muy faagaagalee seen jiit di Ousmane Sonko nga xam ne tey dafa taxaw temb ngir tëj ko ci kaso bi ngir mu bañ a bokk ci élection présidentielle bu 2024. manifestant yi daal di sàkku ci lu amul benn sikki sàkk ñu daal di bàyyi bépp détenu politique maanaam képp koo xam ne rek caabi dala féete ginnaaw te lenn waralu ko lu may mbirum politique waaye itam naxarlu nañu teewaayu ay nervi di ay samba boy yoo xam ne amuñu benn sañ-sañ ngir nekk ci armée bi yor ay ngànnaay ngir rek mën a gàllankoor askan wi nga xam ne ñooy gunge Ousmane Sonko mu mel ni nag du doomu Sénégal yi nekk ca Paris dong ñoo wàcc ci mbedd yi doon ñaxtu seen natango yi nga xam ne ñoo nekk ca Italie feelu nañu leen ñoomit it amal nañu ab ndaje ci parc bi ñu duppee Tarello nekk foofee ca Cefalonia 55 ca Brescia sénégalais yi nga xam ne dañoo bokk ci parti Pastef waaye itam ñi nga xam ne dañoo yërëm Ousmane Sonko ak li nga xam ne moo ko daal jamono jii fi ci réewum Sénégal dajaloo nañu ñoom it wan seen njiit ne fañu ne ñu ngi am taxawaay waaye itam seen xel yépp mu ngi ci moom ñoom it ni ko seen naataango yi nekk ca Paris defee ñaawlu nañu lim bu takkub doomu aadama yi nga xam ne jamono ji tëj nañu leen ci kaso yu Sénégal rawatina ñi fare ci kujje politique yi nga xamante ne ne tey sañu ñoo seen gémmañ joxe seen xalaat ndax ku ko ci def ñetteelu ñetteelub mandat naka noonu ger gi ak it justice bi nga xam ne tey Macky Sall da ci teg loxo di ci def li ko neex lii nag firnde la ni mbiri Ousmane Sonko yemul dong fi ci réewum Sénégal daanaka sénégalais yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi fësal seenum jàppale ci seen njiit di Ousmane Sonko. AGT News. ñu wax ci mbiri docteur Babacar Niang bu suma assistance xam ngeen ne ay bés bi ñu génn tegoon nañu ko loxo mujj nañ ko woon sax féexal niki ci samedi bile mu delluwaat ci njabootam niki tey ji ci suba nañu ko wóolu woon moom docteur Babacar Niang ba mu demee wuyu ji daanaka. dañu ko déféré ca parquet ba jamono ji li koy toppee mooy non assistance à une personne en danger aride homicide involontaire jamono ji nag mu nga ca cave bu pale de justice bu Dakar di xaar jano ak procureur bi AGT News. ba tey ci wàllum xibaar Arona Coumba Ndoffène Diouf nekk ministre conseiller ci président de la république Macky Sall moom jël na dogal ne daal dafay samp ndëndam nekk candidat ci élection présidentielle bi ñu dëkkmal ci atum 2024. moom nag jot na sax jano ak taskatu xibaar yi ngir fësal lu ni men yemu ca wax na itam ci ñetteelub mandat bu Macky Sall mu ne daal bu dee ci wàllum xalaat li nga xam ne xel mën na ko nangu am déet jàpp na ni Macky Sall mënta samp ngir nekkaat candidat ci élection présidentielle bu 2024 mu ne ni Sall def na ñaari mandat waaye nag ci beneen fànn juridiquement bu ko neexee mën na samp ndëndam ngir rek daal di nekkaat candidat ci élection présidentielle mu ne loolu soxlawu sax muy dem ca conseil constitutionnel waaye dafa di loo xam ne xel mënu ko nangu maanaam daal la morale mënu ko nangu tey it amul benn décence moom jëwriñ ji nga xam ne moo doon xelal Macky Sall mu ne doomu aadama warta weddi boppam maanaam wax waxeet ci leeral Macky Sall dafa janoo woon ak sénégalais yi ne buñ ko falee ñaari mandat képp lay def ci bopp réew mi kon tey xelam war na ko delloosi mu fàttaliku ay kàddoom ba war koo wormaal ni mu koy defee nag yomb na mooy bañ bokk ci élection présidentielle bu 2024 bi nga xam ne moom nañu dëgmal lii nag du samay kàddu kàddu yi Arona Coumba Ndoffène Diouf la AGT News. ñu wax ci beneen mbir boo xam ne tey mën nañ ko jàppee taxaw seetlu ndax nag njiitu réew bu Sénégal Macky Sall xam ngeen ne njeextalu ay bés bi ñu génn daan nay amal ab ndaje bu am solo ak secrétariat exécutif national bu parti APR ñu jël fa ay dogal yu yees ci jàngat rek la nga xam ne moo am keroog ca makaanu APR foofee ca Mermoz li muy fexnde mooy ne rek njiitu réew bu Sénégal Macky Sall nekkagul ci tànku bàyyi nguur ak Sénégal. jamono ji li mu gën a jege mooy waajal boppam ngir sóobu ci élection présidentielle bu 2024 ndax nag noppiwul ngir may dara sas na ay responsable naka noonu ay militant ñu daal di taxaw temb ngir défendre li ñu duppee la république contre ñi nga xam ne ñoom ñooy les ennemis les ennemis nag du ñenn lu may l'opposition bi nga xam ne tey ñoo taxaw ngir jàmmaarloo ak Macky ngir mu bañ a bokk ci élection présidentielle boobee sàkku na ci ñoom ñu daal di booloo ndax nag ndam yu bari mu ngi leen di xaar ci sunu kanam loolu weesu ñu daal di barastiku ci beneen dogal boo xam ne jël nañ ko bi la yoon nag mi yi jëm ci fanweeri fan ci weeru mars jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mi génn ab bataaxal di wax ni vacances scolaires yi dañu koy anticiper ndax ñu ngi ko njëkkoon a jàpp ci fanweeri fan ak benn ci weeru mars ba ci fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2023 waaye nag jëwriñ ji nga xam ne moom ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mi nee na yooyu les vacances dañu koy tàmbali altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars jàpp àllarba fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2023 coppite may tolluwaay gi ci wàllum politique nee ñu dañuy bañ ndongo yi wala sax jàngalekat yi ami gàllankoor ak xew-xew bi nga xam ne moom la ñu dëgmal fanweeri fan ci weeru mars mooy bés bi nga xam ne Ousmane Sonko war na ci janoowaat ak Mame Mbaye Niang ci coow li nga xam ne moo dox ci seen diggante yi mu mel ni ay stratégie la yoo xam ne nguur gi da ko teg pour wane ne tey dafay defante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kuje politique gi maanaam daal Macky Sall ak ñu mu àndal naru ñu may dara ñi faxe ci politique xam ngeen ni àllarba am na ay doxu yu bari yoo xam Pastef namm nañ ko amal ci gox goxaat ci nekk ci réewum Sénégal niñ ko defee woon ci fukki fan ak juróom ci weexu mars bi ñu romb G7 mel ni ku def bi gën a neex ndax ñoom tey dañoo xëy banque seen yoxo dakkal njàng mi bi 10 heures jotee lii nag dañ ko amal ci diirub ñaari fan di grève boo xam ne dañ ko def ngir ñaawlu teg loxo bi nga xam ne def nañu ko ay syndicaliste rawatina ay élèves yu ñu jéñ ne dañu am pax pax loo ak ak féete ci parti bi nga xam ne moom mooy Pastef les Patriotes G7 di sàkku ci syndicat yépp ñu daal di dajaloo doon benn say ngir ndongo yi nga xam ne dañu leen teg loxo rawatina jàngalekat yi ñu mën leen a bàyyi ci nu mu gën a gaawee ndax nag lii buñ ko bàyyee mu woyi des na tuut daanaka kenn du ŋàng ci réewum Sénégal rawatina nag ci daara yi nga xam ne bokkewul ak dara ak mbirum politique. ñoom ñiy jàpp ne xoxatal gi tey dafa agsi sax fi nga xam ne moom mooy ci bérébu sàkkukaayu xam-xam yi ñu nekk ci G7 di fàttali seen i natango ne tey dañu war a booloo doon benn ndax li dal seen i natango ëllëg mën na leen dal. AGT News.